actuellement nii boo ma doon ñëwal ci làmb yi nga xamante ni euh, suñu euh, ñenn ñi tëgg nañu ko tey boo boo ma doon analyser ci combat damay njëkk a ñëw ci journée bi nga xam ne Bawol production moo ko organisé mu dox ci diggante général Malika fist de Balla combat boobu boo ma ko doon analyser en tant que mbër lan nga may wax ci combat boobu. waaw combat boobu li ma siy wax moom mooy général Malika fils de Balla man moom su ma doon jox favori général Malika laay jox favori parce que moo ëpp moo bu moo bu compétition fuuf. nekkul na di xeeb Fils de Balla noonu Fils de Balla itam champion la ndaanaan la. parce que daan dem na fay jéego daan na fay mbër yu mag. mais général Malika ko. parce que loolu da lan mooy avantage am ci combat boobu Fils de Balla lan la war a mën a moytu ak lan mooy avantage am ci combat. Fils de Balla lu mu war a mën a moytu général Malika jàpp ko rek. na mu du général Malika collé ko rek waaw. waaw Fils de Balla nag Général Malika xaw ma xeexam ne moom li ma wax Fils de Balla moom na moo di Général Malika jàpp ko ba tafu ko waaw. Tapha Mbeur Ada Fass. waaw Tapha Mbeur Ada Fass waaw combat bu combat ba combat ñoom ñaar ay technicien lañ te ñoom ñaar ay booy lañ te ñaar duñu am kenn du arrière. Mhm. waaw combat boobu nga combat boobu moom sincèrement parlé que le meilleur ñoom ñaar mais dañu si gis jëli bu yéeme. ñoom ñaar ñoom ñaar si gis jëli bu yéeme. moo ma doon natt ñoom ñaar nga doon xool ci wàllu doole di xayma kan nga jàpp ni moo ci ëpp doole. non kenn ëpp si ñoom ñaar dañoo tolloo parce dañoo tolloo si bëre tolloo si taay parce ñoom ñaar combat bi ku nekk da ko fonk. moo tax du ne kii moom kenn ëpp doole. bu baax bu leer parce que du ñu ay ragal ñoom la ñoom ñoom contre rendi bu ñu bëgg a def parce ku nekk dafa bëgg a dafa bëgg a daan fekk ji ñeneen ñi waaw.